riyaadu saalixiin bismillahi irrahmaani irrahim rabbi srax li sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo ci seen jataay bi ñu tudd riyaadu saalixiin ngeen koy am bés jot waxtu wi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 te war a nekk su ñaar fukkeelu daje ak ñaar ñu war a ñëw ci hadis yi nga xam ne moom la al imaam Nawawi teg ci laaya yooyu laayu am solo yi nga xam ne démb sunu borom wan nañu ci ne mi ngi ànd ak noonu waaw tàmbalee ko ca ba nga jógee ca lal ba ba na nga àgg ca jàkk ca wax ne mi ngi ànd ak ñun wax ne dara ump ko wax ne ma nga nuy xaar ca bunt ba wax ne ku ci am bëti wor xam na lu waaye xalaat ci xolam xam na loolu nag tëkku mënu koo gën a rëy loolu tëkku mënu koo gën a rëy eh, mu ne kon laa yooyu bari na lool mu ne laa yooyu bari na lool bu leen toppoon téere bi mën naa jeex te laay du jeex mu ne kon mi ngi ñëw nag ci ahadis yi nga xam ne moom lay indi hadis yi nga xam ne moom lay indi ci bunt boobu tudd al muraaxaba te mooy fuglu te mooy fuglu bu ñuy maye jabar ca jàkk ja da ngay dégg imaam buy xutba mu ni inna allah kaana aleykum raqiba yàlla ak leen di fuglu muy waaw waaw mu ne mu ngi leen di fuglu de képp ko wax ci sëy bi la koy tas <laughs> yàlla mi ngi lay fuglu bu kenn wax ci sëy bi la koy tas waaw tabaarkàlla dox leen waxi defar rek ñu ñëw ci hadis bi ñu ci njëkk indi moom al imam ñu ngi ko jële ci Omar ibn al Omar ibnul Xataab boo yemoon ci ne Omar ibnul Xataab rek penc mi xam nañu lu bari ci moom radiyallaahu taala mooy bàyyi Abdullah mooy bàyyi Xafsa te Xafsa kenn la ci yonent bi aleyhi salaatu salaam doon denc Omar mii mooy bàyyam moo tax léeg-léeg ci tuddee ko Abu Xafs Abu Xafs tabarkalla wala Abu Xafsa Hafsa Iliman kan mii ne ci suñ rajo bi sa mii liñ ko tuddee ñun nag ñuy wax Absa def fi benn bë waaye moom Hafsa waaw xalpulaar yi moom la ñuy wax waaw ku noonu de hey <clears throat> Omar ibnu Xataab ay taxawaayam ci pénc mi umpale wuñu ko bi fi alayhi salaatu salaam jógee xilaafa ga Abubakar fa toog ba mu fi jógee Omar a toog te Omar quarantième la nekk ci listu dugg ci lislaam di góorgóorlu ba nekk troisième personne allahu akbar mbokk yi taxaw leen boobu Omar nu Xattaab bi muy dugg ci lislaam fekk na fi trente-neuf waaw fekk na fi trente-neuf moom mooy numéro quarante Omar ak liggéey ba Omar ak taxawaaya Omar ak liggéey ba Omar ak taxawaaya ba jël troisième allahu akbar boo ne Muhammad ne Aboubacar teg ko ca di sànn yal na ko yàlla fayal ba ma ci biir jàkka yonent ba moo tax danga naan Muhammad alayhi salaatu wasalaam daan ne euh, Aboubacar Sadiq daan ne Omar ñoom ñett ñoo tëdd ci biir jàkk ja mooy troisième troisième personne parti bi troisième personne parti bi le secrétaire général du parti Mouhammad alayhi salatu wasalaam deuxième personne Abu Bakr as-Siddiq troisième bi di Omar ibn Khattab diggante quarante ba troisième hmm? li fi dox mat na daanaka fanweer ak juróom-ñaar loolu lu jara bàyyi xel la ci bunt bii nu nekk mooy mbir mi mbir mi bu doon deuxième ak troisième ci bokk lay nekk kon ali yoo koy doon kon ali mooy doon numéro deux ginnaaw yonent bi waaye mbir mi du foofu ala kulli xaal Omar moo jël troisième bu fi yonent bi jógee Abubakar dafa toog ba Abubakar toogee moo toog ca xilaafa ga boroom taxawaay yu am solo yu Omar ibn Khattab ci pénc bi tey ci bunt bi imaam Nawawi def ne Omar ibn Khattab nee na dafa am benn bis baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne daa am benn bis ñu toog ak yonent ba dafa am benn bis toog ak yonent ba dañ daan faral di toog moom lu bari ndax gëj a toog ak sëriñ day wàññi imaan day indi duful imaan al bu'du anil qudwa as saaliha day day day day day indi duful imaan moo tax ñoom dañ daan toog ak yonent bi lu baree baree bari àdduna nag léegi toog ak sa sëriñ moo fi gën a jafe <laughs> toog ak sëriñ moo fi gën a jafe nit ñi kër këri àdduna ji tax na toogatuñu ak sëriñ si waaw sëriñ si ñoom it jamono tax na toogatuñu ak taalibe yi waaw lu jar a xel la bàyyi na maa naxnu julusun inda rasulillahi ndax koo xam ne kii boo toogee ak moom tëbb ci zahir tëbb ci baatin toog ak moom dana la jig di toog ak moom baax na ci yow waaw ulaayika al xawmu laa yasqaa jalisuhumu allahu akbar ca xuqal bu kaaw Sëñ Tuubaa nee na am na gaa yoo xam ne kenn du toog ak moom ñoom di texee di kenn du toog ak ñoom di am di di souffrir waaw mukk lu tax parce que ñoom seen majalis du majalisu saqaawa moo tax laa yasqaa mu ñaari baat yaa ngoog mu ne dañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dee leen toog ak ñoom waaw dee leen toog ak sëriñ si mu ne benn bis rek ci toogaay yu ñu daan toog istala aleyna rajulun mu ne fiñ toog rek ñu seen jenn waay jenn waay ju làqar ci làqar ci ku koñ bi waaw ñu toog rek seen jenn waay ju làqar ci ko koñ bi euh, ñu daal di ne nit dee nga nël di ñëw Omar nee na waa ji yéreem yu weex yi jaaxal na leen waaw waa ji yére yim soldaa weex tàll tàll tàll waaw mu ngoog nee na yi daa weex tàll tàll tàll mu ngoog yëre yi weexaa yëre yi jaaxal na leen yére yu weex na tàll loolu benn la am la ñuy jànge ci yére yu weex tàll yére yu set wecc dafa baax ci kuy jàngi ndekete kuy jàngi yére yu set dafa baax ci moom waaye du lum sol lum jot sol xanaa mu ñàkk pexe ni ab taalibe ci Sénégal waaw dongob daara ci Sénégal xanaa mu ñàkk pexe ni dongob daara ci Sénégal ci li tàmbalee ci vingtième siècle ne bu njëkk melutoon noonu bu njëkk dongub daara dafa xamoon ni am na benn pacte bu dox digganteem ak jullit yi bu ñëwee ci buntu kër gi ne allahu rabbuna muy laara bi laaraan waaw ndeysaan allahu rabbuna man mii jàng ak yow mi nga xam ni jàngoo yàllaay sunu boroom mu jox la ba ngay añ noonu mu xañ mab añ mu bëgg laa fàttali dox suñu diggante noog suñu borom ndax nga tibbal ma ci añ boobu jox ma laara bi laaraan waaw bu dee bu dee dong dong ba mag mu ne mastata waaw bu dee dong ba ndaw mu laara bi laaraan léegi nag bàyyi nañ ko wax sarax añ <laughs> léegi nañ koy bàyyi wax sarax añ ak sarax reer ndeysaan ndax nit ñi comprendre tuñu message boobu naan allah rabbana laara bi laaraan donc boobu nag moom léeg-léeg ay yërëm du mel ni yére yi kii Omar di nettali weex tàll déedéet day sànn dala gis si ko xam ne kii sax tabarkal yére bi mu am benn képp la waaw te 2016 ba léegi moom lay sol waaw penc mi nag au lieu ñu dala ko yëre dañ koy seexlu ak di ko daw te ndeysaan bu ñu xamoon waaw dama mës dégg sunu benn jigéen bu ñuy wax Rabia Cissé jàngalekat la yàlla na ko yàlla gën a sàmm muy wax ci lu dem ci yalwaanum gone yi ba agsi ci gone gi yalwaan may la ci yalwaanam ji mu ne ko ah, hay buñ ko xamoon <laughs> buñ ko xamoon day waaye daal tubarkal la mu ngi noonu rek jërëjëf soxna Rabia Omar mi ngi nettali mu ne la ca teg mooy waa ji kawar gi dafa ñuul ñuul kukk kawar gi dafa ñuul kukk di nes nasi maanaam peñewu na kon waa waaj na ginnaaw yëre weex na tàll kawar gi ñuul kukk kon waa ji waaj na kuy jàng da ngay waaj ku sa doom di jàng da nga koy waajal waaw ndax mën a jël xam-xam Omar waaw mu ne laa yuraa laa yuraa alayhi asaru safar mu ne kenn du ko xool naan kii dëkkul ci dëkk bi ndax jeexantalu tukki mooy bu fekkee da ngay tukki sa yére yu weex sa kawar gi ñuul poussière mën naa am ci kawar gi froissé mën naa am ci yére yi ñoo xam ne kii day tukki ndax koo gis kuy tukki boo xoolee xam ne kii day tukki déet léeg-léeg nga romb ci tali bi nit koo xam ne kii yow boo ko séenu nga xam ne kii fa mu jëm soriwul waaw kii fa mu jëm soriwul ñaare booy dab nit ci tali seen ko dox fa mu jëm soriwul waaw ba ci <laughs> waaw loolu nit ñi xàmmee nañ ko ci tali bi rek waaw kon kuy tukki bu ñëwoon agsi rek nit ñi daan xam ba xam kii dafa jóge ci tukki wala déet Omar ibn Khattab nee na waa ji kenn du ko gis naan kii daa tukki waaye nag wala yaarifu minna ahad te kenn xamu ko ci ñun kenn xamu ko ci ñun yére yi weex na kawar gi ñuul na amul poussière ci yére yi amu ko ci bopp bi te waa dëkk bi kenn xamu ko ci nun ñu war yonent bi kenn xamu ci kii waaw nan topp addis bi rek nu déglu nag li Omar di nettali si waa ji daal kenn xamu ko ci ñoom te nekkul kuy tukki walla niruwu ko kawar gaa ngi ñuul kuk mu peñe ko ba mu rafet ndax yonent bi nee na rikk waay maa ngi leen di ñaan loolu laa wax xoloon <laughs> suñu benn technicien bu nekk fii Alassane Wade mu wat kawar ga <laughs> tantam may ma trois mille <laughs> tantam may ma trois mille waa ndeysaan ne ma seet ay waay li nga nu tàqale boo ko xamoon <laughs> kenn mësu koo gis rek Alassane Wade yàlla na ko yàlla yokk wér waaw xam nga ñoom sunu techniciens yi ni ngeen di dégloo waxtaani fajar yi noonu lañ koy dégloo <laughs> waaw far waxtaanu fajar waaw def ci moom benn jeexantal macha allah <laughs> waaw ndax bëpp bi ni meloon daal gënul toon tàntaam te pexe amut waaye ma ne may waxtaan baag si fii mën na yonent bi nee na ci waa jii nii rikk waay ku ci am ci yéen kawar ñu ne haa mu ne na nga xam ne yaa ngi ko doon ne ca sa maam Ibrahima waxin la ndax daa amoon kawar ñu ne waaw yonent mu ne rikk waaye maa ngi leen di ñaan ku ci am kawar teral ko mbaa nga wat ko loolu la loolu la ñaanoon Alassane Wade ne teelaa ko koy may <laughs> kenn musu koo gis rek mu ne rikk waay yonent bi moo ko wax ku ci am kawar teral ko mbaa nga wat ko ña ko ne ko nuñ koy terale mu ne wut ak peñe rek ak loo ciy diw waaw wut ak peñe rek ak loo ciy diw mu ne nuñ koy wate mu ne nel bu set wecc nel bu set wecc <laughs> waaw nun nag nooy def ndeysaan jubbu ju boo demee càlle dafa am jubbu càlleen jubbu ñu sant njaay ca càlle ak jubbu ñu sant géey ak jubbu ñu sant jaw waaw ak jubbu ñu sant si <laughs> waa càlle mu tax ku génn rek nga xam fi mbokk ca dëkk ba moo fa xewoon léegi nag xewi na seet <clears throat> sun yaay loolu ñu daan watal aw jubbu na jubbu càlleen léeg lañ defal la jubbu ci ginnaaw tudd jubbu tudd ñaan ñeex kenn mësu koo gisi rek keroog ba ko yonent bi gisee kër kër kër Omar ibnu Xataab ñu defal ko ñoom Abdoulaye yonent bi woo leen Omar Abdoulaye ibnu Abdoulaye Omar nee na keroog noo ngi mel ni ay cuuji ganaar yonent bi uuf leen ñoom ñëpp dóor leen ay nel ne leen dem leen ñibbi <laughs> ndax dañoo waxtoon ci bopp bi bàyyi fa dara yonent bi ne déedéet bàyyi fi lépp mbaa nga war lépp waaw maa ngi ci hadis bi eh, Omar nee na kenn ci ñoom xamu ko fi mu ne waa ji agsi di xuus ci ñun di xuus di jëggat xatta jalasa ila nabi ba àgg ci yonent bi foofu itam léeg-léeg hadis bi dafay jàngale kuy jël source yonent bi moo fi nekk kenn wóotoogu ko mi ngi dund dangaa bëgg xam-xam demal ba ca moom ñu ne diw nee na fekk diw néew dara suñ bàkki si la nee na dafa amoon euh, gorom jafe naa la wax wala seen goro na ma jubbantil nee na booy waxtaan ba ne sëriñ seex Mbàkke nee na bu ko fekkoon lekk fa lay bàyyi lekk ga bu ko fekkoon di naan fa lay bàyyi naan ga loom ko fekkee def na ko bàyyi ñëw ne cell ne la wax fi loo xam ndax moom waxam bëri waaw suñ <laughs> mbàkke moo nu koy nettali waaye lu am solo la kii dafa dem xatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam li muy jàng nii saxaaba yaa ngi fi saxaaba yi ñu jiitoo ngi fi ñi mujj ñëw ngi fi mu romb leen ñoom ñëpp waaw mu romb leen ñoom ñëpp waaw buum gi bu dangeen nañ ko yeew ci euh, baat bopp yëkku kuuy noonu ko xaj bil asis daan waxee rahmatullahi alayhi wa radi anhu waaye léeg-léeg nga gis ku am information bu jógewul ca source suba waaw walla xam-xam bu jógewul ci sëriñ bi ndax silsila bi la koy jox silsila bi la koy jox walla sanat bi la koy jox bu ilmul mustalax ñëwut ilmul mustalax bu ñëwut silsila gi nit mën na cee nekk te bokk ci waaw te bu nit nekkee te bokku ci mën naa rëbb ca wax ja rëbb ci wax ji mooy wax ci loo xam ne dana duufal sa poos mbaa mu niinal sa gémmiñ loolu tax nga dégg ñun addis naan an fulaan jële nañ ci diw mu jële ci diw ndax ñu xam ñépp addis bi may wax ni dégg nga an omar ibnul xataab waaw an omar ibnul xataab waaw waaw an Omar ibnul Xataab ngoog radiyallaahu taala anhu loolu lañ lay wax bu jeexal na rawaahu muslim muslim moo ko jële ca moom mu nekkoon kon ba mu toog ba mu àgg ca yonent ba sallallahu alayhi wa amul protocole amul intermédiaire mukk waa ji xamuñu ko waaw sécurité bi bàyyi ko mu jàll ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu agsee fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi mu sës ñaari bëti óomam moom waa ji ci ñaari bëti óomi yonent bi maanaam mu sukk ñu teg àlluwa ci pooj bi mun lañ daan jànge waaw mu jege yonent bi lool ba ñaari óomam yi di laal ñaari óomi yonent bi alayhi salaam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi yëpp Omar ne na ñëpp ngi seetaan waaw mu ngoog wa wadaa kaffayhi ala faqsayhi nee na waa ji teg ñaari loxoom ci ñaari poojam gan gi teg ñaari loxoom ci ñaari poojam yaru lool dafa sukk teg ay loxoom ci poojam loolu ab yar nga ciy jànge ndax kuy jàng day yaru kuy jàng day yaru waaw kuy jàng day yaru moo tax bu njëkk ci wàllu jàng ki daan jàngale day mag ki muy jàngal mu mën koo jàpp kilifa dëggal kii di jàng si dafa sukk ñaari bëti ëmmam sës ko ñaari bëti umu yonent bi koy jàngal daal di fab ñaari loxoom teg ko ci ñaari ñaari ñaari poojam waaw yaru lool di siggi ndànk di xool yonent bi ak di sëgg li ëpp waaye ki ngay jàngal bu ngeen maasee maasee jamono li ngay def ci moom xam-xam lay doon waaye tarbiye mënu faa nekk waaw mën nga ne ko nag deux plus deux égale quatre ndax yow xam nga ne deux plus deux égale quatre te moom xamul ne deux plus deux égale nga toxal xam-xam boobu jox ko waaw moo tax lu ne mën naa xew diggante jàngalekat ak ki muy jàngal bu fekkee dañoo maase waa ji daal di ko yaa Muhammad saxaaba yi tàmbalee xoolante na ah kii kay xam na ko mu ne ko yaa Muhammad ci axbir nii anil islaam Hmm? waaw yaa muhammad mu ne mu ne ko xamal ma lislaam axbir nii añil islaam kon loolu la jàng si fa bëgg xam lan mooy lislaam laajaale na ko saxaaba ya laajaaleel ko taabiuun ya laajaaleel ko asalafu saalih laajaaleel na ko nun ñii tabarkalla nun ñépp la ko laajaaleel sàqami na sunub lañ ci axbir nii anil islaam addis bi bu am solo la ci xawaayid yi la bokk axbir nii anil islaam ñépp jël seen bindukaay di ko déglu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi jàngalekat ba sallallahu alayhi wa ne ko al islaamu an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqiima alsalaa wa tu'ti zaka wa tasuuma ramadan wa taxujja bay al bayta al bayta in istata'ta ilayhi sabila waaw loolu la ne ko mooy lislaam mbokk yi bind bi jeexut yàlla nañ dund ba ëllëg te weesu ko nu ñëw mott li addis boobu mott li njàng moomu dox diggante gan gi ak kim gane si di sallallahu alayhi wa sallam jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla nu yàlla boole nangul koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi bu del soit yàlla ñu fekk yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara yanaan dala joxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu